fédération Zadul Muchafir ëmb ay daayira yu bëri yoo xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada ci njiital Serigne Moussa Diankala ni ñu ko baaxoo amalee at mu jot saa yuñ dajalee seenu addiya ñëw jébbal ko ki fi nekk Serigne Touba amal nañ ko ci dimanche dëppoo woon ak le 26 novembre 2023 ñu ñëwoon ci Touba Mbacké ci njiital Serigne Diouga Dieng ngir jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou de xalif général des Mourides seenub addiya ñu xayma ko ci juróom million ci francs CFA ñoom waa Zaadul Chafir niñ ko baaxoo defee bi ñu ñëw ànd nañu ak Serigne Bassirou xel Xelkom mu yóbbu leen ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu leeral ko lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi. سبيل ولا من قتل ak ma jëm Mbacke nii sëñ nii sëñ Bassirou defe ko noonu lay ànd ak waa Canada ndax sëñ bi moo leen boole woon ñi ba léegi ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek wax ne sant na leen ñoom ci seen taxawaay rawatina jëmm mooy waa Touba Canada Sadi Moussa Fir waaw sëñ Juba Dieng mii di toog waaw sëñ Bass di wax ne ay mbokku taalibe yoo xam ne ñoo am pasteur la ci liggéey sëñ Juba bi fa nekk néew lañ ci liggéey sëñ Juba bi sëñ Bass kat di leen waxoon ne nañ ko yëkkat waaye nag sëñ Bass di wax ne sant na liggéey sëñ Juba bi kon lépp dara waralu ko loolu sëñ Juba ji Mbàkke loolu rek moo ko waral Mbàkke jërëjëf incha allah jërëjëf cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides sant na bu baax a baax fédération Zadul Muchafir ci seenu Pastef farlu gi nga xam ne mësuñoo dañ di indi àddiya di ko ko jébbal ànd ak moom liggéeyub Serigne Touba bi. mu ne Serigne Bassirou mii ànd yëpp. mu ne rawatina sëriñ Basiru Mbàkke mi ngeen àndal mu ne fa tabarakallahu taxawaay sëriñ Basiru rëy na lool mu ne kon taw fekk dollu seen biir la yéen ñii mu ne ngeen àndal woon ci liggéey bi mu ne kon jërë ngeen jëf mu ne mi ngeen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax di leen soññee boppam baax di gën a fexe ay laxasaay di ko gën a ànd yéen jërë jëf tàll na mu ñaan bisimilah tàll la woon ak beneen waa Canada yi ñëpp tàll seen loxo ñaan ak sëñ Bassirou Mbacké ngay rabit te looy ko doon fas ñaan bi amin amin Mbacké amin آمين يرمك أو صنام يقول لسان أنا المصطفى المختار أولى فمن أنا آمين ودونك nekkee ci réewum Canada ci njiital Serigne Moussa Dieng seen yitte yépp mooy liggéeyal Serigne Touba taxaw temm ci ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ci lépp loo xam ne song na ko ci liggéey bi.